أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بكوي ني تيولو سي سين شين يوتيوب بي دي ليرال بليس تي في نيو السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته nuyoo bu and ak ndokkeel ci wéru tedd wi ñu commencé tay ci aljuma ji di balu haq ñep di bal haq ñep di ñaan yalla niñ ko commencé yalla nañ ko eggalee nonu te kenn baña wuté kenn baña manki te luñ ci yaakar ci yiw yalla ko yalla defal ci yermandé ak mbaxam te liñ ci def ci yiw yépp yalla bu mu neen te yalla ñu ko yalla nangul mu melni tay nak ñu ñew ak ngir waxtaan ak yeen ci koor ak lenn ci ay ngeeneelam mbokk yi xam ngeen ne yàlla bari na ay mbindeef waaye mbindeef mu nekk yàlla daf koo bind ak lam ko soxlaa maanaa daf koo bind ngir dara boo gisee yàlla bind ay ndundat mooy yi nga xam ne du ñu yëg ay jamaadaat lañ yàlla tamit bind ay mbir yoo xam ne gàncax la yàlla bind loo xam ne ay rab la <coughs> xeetu rab yëpp dugg rabu àll yeeg rabu kër yi waaye yàlla bind tamit doomu aadama nee na kon koo xool ci mbindeefam yooyu la tax yàlla bind ko ma ci doomu aadama rek la yàlla di bind ngir nàngam mu di ko sàggane waaye wala mu cay wàññi ndax boo xoolee ndundat yi yàlla daf leen bind ngir ñu nekk ci service gàncax yi gàncax yi yàlla bind leen ngir ñu nekk ci service rab yi waaye rab yi tamit yàlla bind leen ngir ñu nekk ci service doomu aadama yi <coughs> kon war na doomu aadama daal gëstu xam lan moo tax yàlla ko ban importance moo tax mu ñew ci kawnu bi su fekke mom gëstuwul doomu adama gëstuwul lan moo tax yàlla bind ko nek ci luko neex su boba kon jamaadaat yi ñoo ko gën moy yi nga xamne duñu yek su boba kon nabata di ñoko gën moy yi nga xamne ay gantax lañ su boba kon rab ko gën moy ñi nga xamne amuñu xel in humu illa kalana su subo bal humu adallu sabila la ñuy kon ci <clears throat> ngay xamé na kon ku nekk ci yoyu comme niñ ko waxé won ma ngay def importance ba tax yalla bind ko waye kon dom adama wat na laaj bopam lan motax yalla bind ma lan motax ma ñew ci kawnu bi univers bi ndax dama fay ñew ngir lek ak nan kese wala ndax dama fee ñëw ngir foo ak caaxaan ndax dama fee ñëw ngir sëy ak jigéen ñi xool ci jigéen ñu baax ñi ma takk ci sëy rek wala ndax dama fee ñëw ngir foo <clears throat> te yooyu yëpp jomb na jomb na yooyu yëpp dara benn taxul yàlla bind ko ci ndax yàlla nee na afa xasibtumu annama xalaqnaakum abasan wa annakumu ilayna la turjaun ndax da ngeen yaakaar ne man yàlla dama leen a bind ngir foo ngeen yaakaar ne bés du ñëw ngeen dellu si ci man kon doomu aadama na posé waat question boppam lan moo tax ma ñëw ci univers bi lan moo tax ma ñëw ci àdduna lan moo tax yàlla bind ma <clears throat> mu mel ni bu wëree ba sonn amul tontu bu demee ci alxuraan mën na fa fekk tontu ndax yàlla nee na wa ma xalaqul jinna wal insa illa li yaabudun bind ma nit ak jinna lu dul ngir ñu jaamu ma maa uridu minhum min risqin wa maa uridu an yut'imun amul lenn lu ma soxla ci ñoom ci wërsëg wala luñ ma jox ma lekk wala ma naan man yàlla ndax yàlla mooy ki nga xam ne mooy muxni moo doylu walis walis lépp maanaam soxlaalu kenn dara te moom mooy razaqu zul quwatil matin mooy ki nga xam ne ku am wërsëg moo la wërsëgal mooy borom doole ju dëgër ci kon boo xoolee loolu da nga xamne kon yow dom adam li tax yalla bind la moy nga wax ne la ilaha illallah amul ben bur budul yalla nga seede ne yalla boobu kenn la nga seede ko ci ak magam waye tamit nga saxo di ko sant te bañ a sàggane di ko ndax yoyep ci jamum la bokk niki non nga xamne mbollem lum bind ci kawna bi mom suñ borom wa taala nangul nako ak nekkam nangul nako ko ak matam comme ni ko آية القرآن يدي الله رلي ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء <coughs> كن آية بو يالا دي mbooleem lu mu bind ci kawnu bi muy jant muy weer muy biddiw muy euh, euh, montagne muy garab <clears throat> muy daaba yi nee na yooyu yëpp ñi ngi sujjoot ngir ñeel ko moom suñ boroom tabaraka wa taala ba aaya ba jeex kon doom aadama xam nga ne li tax yàlla bind la mooy nga jaamu ko waaye nag jaamu googu kon day nekk tegtal boo xam ne bu dog la nga xam ne alxuraan moo ñu ko yàlla moo ne lii moo tax mu bind ñu nga xam ne kenn mënul indi beneen tegtal ne yàlla lii moo tax mu bind doomu aadama lu dul mu jaamu ko ndax moom moo ko waxal boppam kon nag jaamu googu day tegu bu dee ci lislaam day tegu ci ñetti ñetti euh, ponk boo ci njëkk mooy wax ci làmmiñ ba ko ñaareel mooy dëggal ci sa xol gëm gëm yàlla ba ko ñetteel kon mooy jëf jëfe ponk yi jëfe ponk yi nag <clears throat> boo ko déggee mooy loo xam ne day taxaw ci defal lii ak bul def lii ci noonu lañ tabaxee lislaam ci juróomi ponk kon bi ci njëkk mooy nga seede amul benn buur bu dul yàlla nga seede duñ ko bokkaale ak kenn ci jaamu moom rek lañ war a jaamu waruñ jaamu keneen kudul moom nga seede ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla moo ko yónni ci mbindeef yi te mooy yonent bi mujj ci yonent yi nga seede ne nga dëggal ak yonentam te ko bi ko ñetteel mooy nga taxawal julli def ko ne ko yàlla santaane iqaamu salaa lañ wax buñ ko waxee la muy firi mooy def ko ci na ko yàlla santaane ak na mu ko bëggee sinon rek tuddul julli ba ko ñetteel mooy taxa joxe azaka joxe azaka nga xam ne am na ay ponk am na ay charte euh, dégg nga nga xam ne danga ko gis incha allah bu ci suñu euh, waxtaan eggee rek danañ ko leeral euh, nga xam ne at mu nekk ngay génne azaka ca la la yàlla dénk ci alal xuz min amwalihim sadaqatan tutahiruhum nga xam ne mooy tax sa alal laab niki noonu tamit yow nga laab ci mboolem loo xam ne toppat la niki non bakat ba ca top moy wor wer koor wi ñu nek <coughs> ba ca top moy aj néegu yàlla ba ci ko xamne mën nako ben ba nak moy farata kon wor wer koor bokku na ci juroomu ponku kon ben la ci ponku yi nga xamne dañ koy jëf kon euh, war na kon ci kep ko xamne ku majeur la ko xamne euh muqim la ko xamne sahih la nekul ci tukki ta ku wer la koku mu daldi wor wéru koor hakaza kon introduction bobu lañ doon def bala ñuy ñëw ak yow ci makanatu siyam bainal ibadat ci lañuy ñëw legi makan manam dara jaay wéru koor ci bir jaamu yàlla yi yàlla suñu borom tabaraka wa taala mo ne ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum laallakum tattaqun yen ñi nga xamne gëm ngeen yéen ci daairatul imaan xam leen ne yàlla farataal na ci yéen koor comme nim ko farataalee woon ci xeet yi leen jiitu woon ci waa ahlul kitaab mooy ñi nga xam ne seen yonent ab téere wàcc na ci ñoom ngir lan ngir ngeen ragal ko wala xëy na ngeen ragal ko nee nag la àlla la yàlla moom day nekk loo xam ne lu dëgg la luy am la waaye du nekk loo xam ne lu ñuy dengi dengi la naan dana am wala du am mu jeexale aaya bi ci ragal yàlla <clears throat> ndax ragal yàlla mooy ma mooy moteur euh, ngir xol yi mën a joxe farata bii di koor ngir toppee ko yàlla <clears throat> danañ la wax lan moo tax mooy moteur bi ndax koor mënul am sans ragal yàlla nga xam ne buñ ko joxee moom koor ci ni ko yàlla santaane ci lañuy amee kontaante moom yàlla ragal yàlla googu tamit mooy garder xol yi ba nga xam ne seen koor duñ ko mën a yàq ci mooy yàlla hakaza ci loolu nag <clears throat> war nañoo samp ab laaj daan lan moo tax koor nekk ci diggante gëm yàlla ak ragal yàlla ndax aaya bi dafa ubbee yéen gëm daaneele ndax ngeen ragal yalla lan motax mu nek ci iman ak taqwa diganti gem ak ragal yalla loolu li tax moy gem de manam xol moy deugal manam gem ci xol lay nek moy deugal ci sa xol ne yalla kenn la yonent bi yalla ko yoni gem bolam yonent yi ba ponk iman yi jeex gem tere yi gëm malaaka yi gem dogal yi yu neex ak yu metti te lépp loo xam ne nag sax na ci xol secret la ci secret yàlla yi nga xam ne moom rek moo ko xam moo xam dëgëre gëm yàlla ku nekk ci ñun buñ na taqwaa nag ragal yàlla <clears throat> mooy moytu ay tereem def ay digleem maanaam ragal ko di ko bàyyi xel foo toll ragal yàlla tamit xol moo koy def te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi doon na wax ci xadis ba muy misaal ragal yàlla daf ne at taqwa hahuna daal di teg loxoom ci dënn ba léegi nag comme wax nañ la gëm yàlla dëggal la ci xol te secret la boo xam ne yàlla rek moo xam ni ki noonu tamit ragal yàlla place mooy xol moo tax <clears throat> koor daal di ñëw nekk seen diggante ñoom ñaar diggante ragal yàlla ak gëm yàlla nga xam ne bu doon ab caq ñu ne mooy digg ba moo leen digg la ñoom ñaar ta koor dafa nekk jaamu yàlla goo xam ne jaamu yàlla secret la nga xam ne yàlla rek moo xam ndax mën nga ne dama woor ci biir nit ñi boo wéetee def lu neex su boobaa tuddul koor waaw kon sa digganteeg yàlla la <clears throat> ba nga xamee ne kon gëm yàlla palaasam mooy xol ta koor di secret diggante jaam bi ak boroomam ragal yàlla tamit palaasam di xol loolu moo tax yàlla boole leen ñoom ñett muy gëm yàlla koor ak ragal yàlla ñu ànd moo tax aaya bi tëddee noonu ba tey koor nekk na loo xam ne day yëkkati jaam bi ci suufe suufe yi ci jikko yi nga xam ne moom lañ ko mooñaale ci suuf ndax doom aadama ñaara ko seq bind giñ ko bind ci tiin tiin mooy ban nga xam ne ci suuf lañ ko bind yaramam lépp lu suufe rek lay sopp lépp loo xam ne day dellu ci suuf la doom aadama di bëgg lekk lekk yi ñuy lekk yépp ci suuf la jóge naan yi ñuy naan ci suuf la jógee sañsa yi ñuy sañsa yépp ci suuf lay dellu loolu la doom aadama bëgg ci xolam lan moo tax liñ ko bind ci suuf moo tax waaye tamit ñu bind ko ñu indi ruux te ruux ko bind ci leer mu jógee ci kaw moo tax jaamu léeg-léeg yàlla def bu la yàlla dëppale nga bëgg di jaamu yàlla di ko jege hakaza loolu moo lay yëkkati kon doomu aadama ci diggante ñaar yooyu la nekk muy ruux ak yaram yaram lu suufe la bëgg ruux lu kawe la bëgg koor nag day tax nga débarrassé wu ca suufe suufe ya nga xam ne moom la sa bakkan bëgg ak jikkooy doomu aadama yi nga xam ne boo ko toppee mën na la alak daal di lay jëme ci jikkooy malaaka nga xam ne mooy topp yàlla te doo ko mooy nga xam ne tamit ci jikkooy nuuraani ya la lay yóbbu mooy sa ruux gi nga xam ne leer la soxla moo koy dundal kon koor day dundal ruux gi nga xam ne leer moo koy dundal mooy jaamu yàlla ngay def ak euh, téye gi nga téye sa bopp ba doo ko moy ak yu ni mel kon ci koor daal ngay yéege ba daldi di dépasser mboolem luy bànneex nga xam ne su boobaa nag <clears throat> nit ku mel noonu lañu soxla moo ca ngay nekkee nit dëgg nag bi nga xam ne moom lañ soxla nit koo xam ne dundam yépp mooy loo xam ne luy dundal ruuxam la ndax ko xamne dañ na lek gaangi ni man nga ci lek waye nga bayiko ko ngir def santane yalla nan gaangi ni nga man cee nan waye nga bayiko ko ngir def yalla euh soxna yaangi ni nga nga meuna a ak ñom dagan nañ ci yow ci luddul dul wëru koor waye koor tax wëru koor tax tere gañ ko tere tax nga bàyyi ko su boba kon <clears throat> yaa ci yoon bi nga xamne mom la la yalla sant yaa ci yoonu tagga sa bop ci ragal yalla هكذا كون لول موي كور شي لول موتاخ يالا شي ماغ ماغ موم كور موتاخ يالا واخون كل كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجتي به دوم ادم جفام ييب موم موكو موم بام ديس كور كور موم من ماكو موم ماكاي فايال سام بوب مانام جف ييب يالا من وكيل ملاكه مو جوخ يول بي دوم ادمه waaye koor moom yàlla rek moo koy fayal boppam ngir fonk gi mu ko fonk nga xam ne digganteem ak yàlla kese la bëggoon nañoo ñëw ci ngëneel li waaye temps bi ñu mayoon jeex na incha allah bu ñu ko euh, incha allah danañ amaat temps euh, ngir dellusiwaat ci li nga xam ne mooy mottali bi la waxtaan di ñaan yàlla na yàlla nañ ko woor ci jàmm yàlla def bañ def benn ndog yàlla jeexal jaaree ci jeexalaale feebar bi koor gi yóbbuwaale ko يالا دافال جامو سي ظاهر دافال والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته